sëriñ Mbay Jaxate amna na fu mu wax lu mel wax noonu wax na nañ japp tanki ak làmmeñ yi jàpp gu tar ku def lu li ma wax day dal di lorté te té waxtu wi ndaw lu gàttum xel lu kenn yarul mo ci wéré loko wax yewul te dal di yaru jekki sa kër japp sa njambur té nëbb bu yer ko séru muy dox akay wax nee ko yaa xaru ndax da fay yanu lor yit wa bërëb ba mu jëm bu ñibbi fa lori ñooñee yóbbu far dox kat bu li lor sé seeki loram moyel ma ab dox dox kat té def ko yaru